Euh, mu di ab combat bu neex di combat bu nga xam ne tey doxoon na ci diggante ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès ak Reug Reug ci jàngat yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal ni ki tey dañuy fas yéenee dikkaat àndat ak yéen ba tey euh, parce que nag jàpp nañ ne tey combat bi ak ñi nga xam ne rek noonu la terminé mu nekk combat bu nga xam ne ñu baree baree baree bari mën nañ ne euh, li ci doon xaar am nañ ko si à cent pour cent parce que itam nag gis gisoon nañ au début comme ni nga xam ne noonu lañ commencé woon gannaaw bi ko Reug Reug xëppee li nga xam ne moom mooy ay bagage classe affaire yooyu noonu coow daal di commencé dox judd ci seen diggante ñoom ñaar euh, ba ni nga xam ne rek noonu la seen signature contrat bi daal di jot a daggee wante kat jàppoon nañ tey ki nga xam ne moom mooy Sa ak ni nga xam ne rek euh, noonu la dikkee tey mu engagé wu ci li nga xam ne rek moom mooy euh, journée tey bi parce que moom li liñ ko defoon métti na ko de trop métti bu ko métti woon na ñu bëree bëri loolu moom moo taxoon ñu ne tey Sa Thiès boobu mu sens dina yàq li nga xam ne moom mooy combat am wante nag gis nañ ni nga xam ne rek noonu la combat bi terminé mu nekk lu nga xam ne tey victoire victoire la bu nga xam ne tey ñu baree baree baree baree bari ñi ngi ko doon xaar ci ñi nga xam ne tey ñoom ñooy amateurs yi rawatina ñi nga xam ne tey ñoom ñooy seq li nga xam ne moom mooy làmb ji làmb ji nag peut-être mën nañu ñu baree baree bari seetaan nañ ko wante kat victoire bi nga xam ne tey euh, moom la ñu baree baree bari yaakaaroon parce que itam xam nga tey diggante rëg-rëg ak ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès mën nañ ne euh, au début dafa am benn affaire bu si amoon moom mooy lan mooy ne tension bi dafa élevé woon de trop tension bi nga xam ne moom moo élevé woon nag loolu moom moo indi tey combat bi dem demee ni mu demee kon nag félicitation félicitation peut-être mën nañ ne prochaine fois rek dina nekk loo xam ne tey lu gën la parce que itam euh, làmb moom nii lay demee tout le temps tout temps képp koo xam ne rek gañe nga jàppal na yow yaa am ndam ak foo mënti toll kon nag mi ngi noonu den di jaajëfal bu baax a baax wax ngeen di wéy di abonné